Et il y a une façon même de s'adresser aux gens mhm. aussi, Mustapha. Mhm. Nous, Nous, nous sommes journée mm journée sans presse mhm. pour faire face au pouvoir. On reste toujours avec les échos. Les journalistes rongent micro, plumes et caméras demain euh, réunion, euh, raison convoquée, le blocage des comptes euh, bancaires, la rupture unilatérale et illégale des contrats euh, publicitaires, le gel des paiements. Moustapha, mu comme la presse sénégalaise ñoom fas Diamarlo avec ak l'état actuel ndaxte rek ñoom dañoo jàpp ne fu toll nii dañ leen bëgg rek xañ sen ay liggéey lo motax fum toll dañuy def journée sans presse demain waa journée sans presse dañ jàpp baax na parce que yëglu la mm. waaye man maa ngi doon xaar journée sans presse boo xamante ni dinañ ko def ci lu jëm ci nekkinu reporter ci rédaction yi mm. reporter yi am si ñoo xam ne dañuy xëy suba 8 heures wala 9 heures ba 17 sept heures wala yenn saa sax ñu ëpp kër dafa ñu nekk di fa liggéey amul pañe mm-hmm. maanaam du ñu añ bu jotee man doon naa la ko fi expliquer amoon na mm-hmm. fi benn journaliste su mag benn tele la nekk. Mm-hmm. mu di mu wax ay condition yoo xam ne man am na fi booy yoo xam ne maay obligé bu ñibbi bu weeru toll fent maay jël sama oto di leen di leen di leen déposé. Mm-hmm. parce dagg yoon pour yegg si journée sans presse waroon nañ ko mën a def ñun reporters yi wala jeune reporters yi. kaas ñi nga xamante ne mooy patron de presse yi ni ñuy nootee booy seen salaire seen biir rédaction yi. maanaam jël ay doomu jàmbur di leen liggéeyloo suba ba ngoon lundi ba samdi te 150 000 sax booy duñ ko am 100 000 francs sa booy duñ ko am. man maa ngi nii lundi ba di bi dimanche ma koy liggéey. yaa bokkul bu ma coupé. gis nga yow bu ma tax wax nag. <laughs> léegi foofu doon nañ fa xaar tamit journée sans presse. waaw waaw doon nañ xaar journée sans presse ci ñoo xamante ne tamit dañuy fexe ba rédaction yi. Hmm. teg ay conditions yu normal ci ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey journée sans presse parce que xale yi xale yi ñuy liggéeyal amuñu amuñu IPM. maanaam tey ji ku si soxna feebar wala sa doom feebar tey ji boo demee clinique amoo dara boo xamante ne tey ji mooy garantie ne lii dina euh, dinañ ko dinañ ko dagg ci ci pharmacie beeg yu ni mel amul journée sans presse parce que da nga war a cotiser caisse de sécurité sociale mm. waroon nañu ko defal jeune jeune reporter yi journée sans presse parce que da nga war a cotiser IPRES mm. waroon nañ ko defal jeunes yi tamit dañu war a cotiser IPRES kenn du si cotiser IPRES ku ci màgg dërëm doo ko am bu dimbaliwul mi ngi fi sunu kanam la amul ben sécurité ah. waaye léegi yow loolu lépp nga di ko def ay doomu jàmbur ñu mel comme de comme genre yi théâtre kat yi ngay gis ñu après ñuy sunu kanam la nekk ah. te njàpp nga koy def ay doomu jàmbur mais reporter jeune reporter ñoom ñoo gënoon a yay taxaw def journée sans presse que patron de presse yi bu doon rek dox bi depuis Daw Dawati géej jeune reporter ak ñi nga xamné ñoo ay reporter sa page jeune nek ci rédaction ñum ñoo dëkk def li nga xam ne patron ñoo ñoom ñoo dëkk journée sans presse mm. parce que système bi ñi défé xam nañ ko da nga ñëw tu recrute 4 5 yo xamante ñum ñoo nek ci kaw légui ñom ngay fexé ñu nek ci ay conditions aisées légui ñeneen ñi sa yo nekku si une dizaine ou bien une vingtaine ñoo xamné ne ñu ci suuf sa yo nekku si ñii bu la neexee le 3 nga leen di fay ñii le 10 ñii le 9 sa yoon nekku si parce que da naan man maîtriser naa carte yi nga xamante ne su ma amee plateau andi présentateur vedette bi mooy dem présenté ji mm. am naa benn chroniqueur bu taxaw am naa keneen koo xamante ne mooy présenté bu kële absenté am naa benn journaliste boo xamante ne moom moo yor benn carnet de respect ak benn relation bi jeex na booy bi jël ton fi faalewuma ko booy bi nga xamante ne euh, mooy chauffeur bi faalewuma ko ki nga xamante ne tey jii mooy dem si terrain wuti jaay élément faalewuma ko technicien bi monté faalewuma ko infographe bi faalewuma ko noonu la ñuy liggéey ak booy si biir rédaction yi. waaye léegi condition yooyu yëpp xanaa ñun ñuy nekk si rédaction ñoo waroon di ko yuuxu ko patron yi. Mm. te lu luñ ci wax rek dañ koo xam parce que dañoo jaar ci rédaction yi jaaruñu benn mais ci ay rédaction la ñu jaar. Mm-hmm. waaye léegi yow loolu lépp ngeen di ko def doomu jàmbur yi ba nguur gi changé te jamono yi ñu ko doon def de yàlla xam na ne ñàkkuñu ko. Mm. aide à la presse day ñëw ñu ne ko tungaañ jënd ci oto bu rafet ñenn ñi takk ci soxna. Mm. ñenn ñi ànd def def ci lu neex waxuñu dara ngeen dem signé ay convention xaalis bi dugg ñu xam ne xaalis dugg na ci kër gi ngeen paacoowaat ko. Mhm. jàpp seen njàmbur. bo waxee os ñu la yooyu affaire dafa metti fi ñu toon saa yi ba si kanam. Mhm. waaye léegi loolu ngeen diko ko def di ko def di ko def di ko def ba jamono changé du ngeen gëm yàlla. Mm. mais xam nga tamit il faut il faut que waxante dëgg moo tax euh, la presse na nga mu faatu te man am fenn foo xam ne fa ak ñoom. Mm. mooy pour man président Bassirou Diomaye dafa wara tok ak ñoom. temps plus. Euh, man loolu loolu moom man dama dama dama dama dama dama gëm. bind na ko. waaw euh, bind na ko ñaari yoon répondre man gëm man loolu d' accord ma ci ak moom. man dama gëm ne président war na mën a toog ak ñoom parce que condition bi ñu jëmee nii tamit presse bi yëpp day day faatu yàlla wut. en plus euh, Moustapha xam nga patron de presse yi man je me dis que wu tax ñu wéet ci seen. xeex bi parce que les journalistes yi nga xam ne ñoo nekk dans les rédactions. Euh, gisuñ seen bopp gisuñ seen bopp si li nga xam ne moo nekk si liggéey bi peut-être mhm. loolu moo tax ñu yéex si seen xeex xeex bi mais aussi état bi nu mu bëggee def forcing bi euh, si biir presse bi Moustapha euh, bu yàggee presse dootu fi amati te tamit quoi te loolu baaxul am na ñoo xam ne mhm. aussi si lañ si lañu la man je pense que fu mu toll nii war nañoo toog ñu waxtaan waaw man man loolu laa wax man loolu laa wax man dama ne Euh, dañ koy ñaan rek mu xool agenda am ñu toog waxtaan nu ñuy trouver solution waaw parce que ñee ñee moom ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla moom la yàlla xam doy na mooy mooy mooy mooy ñële moom kenn mun leenaa faral mooy patronat bi nekk ci presse wax dëgg yàlla kenn mun leenaa faral parce que ñii indi ñu fi loi bees indi ñu fi texte bees dañu ñëw rek di appliquer mm. ñoom ñu ne noonu li ñuy appliquer dafa metti parce que li fi nekk bu ñu ko appliquer ñoom ñëpp dañuy faatu waaye léegi d'accord ngeen loolu amul problème mais ñëlé li ñu leen di ñaan tamit moy ñu génn ñu nangu ñu waxtaan parce que bu mm. waxtaan amul tamit du sotti mm. ñëpp xam nañ ni ñi xataraayu gi ñuy xataraayu ni yëngalul ñëlé parce que tamit dañ xam nga tax yëngalul leen dañoo dund expérience bi dañoo dëgmal fi ay présidentiel xaju presse bi 80 presse bi mm. dem andi ji ak nguur gi une ñi def yëpp day jàppale candidat wu nguur bi saa bu ñu xëyee di suuxal saa bu ñu xëyee di def naka sudul noonu yàlla dimbali leen ba réseaux sociaux yi ak seen communication ak fi ñu toll ci xolu sénégalais ñu gagné kon ñoom xam nañ ne presse bi wane na ay limitam moo tax boo xoolee ñi fi nekk nii ragaluñ presse comme ni Macky Sall ragalee woon presse Macky dafa ragaloon presse moo waral bu mu ñëw mu récupérer patron de presse yëpp mu def leen ay bu leen président ñi nangam ak nangam ak nangam non kenn du suñu simi presse euh, vraiment peut vraiment faire mal. non mais kenn du sous-estimer waxuma duñ ko sous-estimer mais dama né duñ ko ragal comme ni ko kële ragalé won presque kenn mënu koo sous-estimer. parce que ragal en fait moi je pense que relation entre euh, autorité ak presse bi euh, relation ki la wara a doon ni koy waxé sax euh, ñu and accompagner liguey man pour man loolu la wara doon en fait. collaboration la wara a doon mais mais demeewul won non nak demeewul won non lan nga fi daan gis kaay ma jox la nga may tag kaay ma jox la nga may wax lu neex. yow est-ce que fii fi gis nga fi ñoo xamante ne dangay ngay def conférence de presse ñu xam ne diw moo ko def wala war na génne def nangam ak nangam ñu jaar ci ginnaaw jaar ci patron yi conférence bi doo gis bés journal mm. ñaata yoon nga ko fi gis litige am benn camp bi toog recevoir presse bi quotidien yi ñëw émarger def ni sa ëllëg sa doo gis benn ci uni mm. parce ba mu ñëwee lu muy wax jox leen ma naa fexe ba xam journaliste yi fa demoon rek man su ma xamee journaliste fa demoon doo na ko gis si journaux yi loolu mooy lan droit information bi droit information bi nga xamante ne askan daf ko am perte na ko. loolu éthique ak déontologie. mayu mayu mayu mayu la ko nga def ko. non mais patron bi la. journaliste day dem ñëw jox ret chef am que patron ba lay woo ne ko il paraît que am na benn euh, élément bu nangam ak nangam bu bu bu jëlee fële fële mu ne ko waaw mu ne ko bu mu jàll. lu mu ciy mën téléphone la ko def ne ko bu mu jàll kooku daal di jël kii bi dugal ko ci corbeille bi jàpp ñàmburam waaw su fekkente ne ni ñuy liggéey ñoom dañu am benn patronat boo xam ne dañoo ñëwoon ñoom ñëpp ñu wéeru ci ki nga xamante ne mooy réew mi musiba am na or model économique lañu waroon changer mm. la presse ne doit pas dépendre de l'exécutif pour vivre loolu mooy jafe-jafe bi ñu fi am ñoom ñëpp dañoo ñëw bëgg suqandiku ci exécutif bi di ko dundee maanaam su dul sa ministre sa directeur la wala muy présidence wala primature mais loolu du dëgg du yoon maanaam il faut que benn ministre bu nekk ci ginnaaw di ma pomper mm. wala nekk ci ginnaaw di ma pomper wala primature wala ma dépendre présidence pour lan c'est-à-dire man dama am sama organe dóorukaay la léegi quoi ministre bi mooy ñëw chaque weer mu dimbali ma que est-ce que xam nga ne su Macky Sall amoon na benn organe boo xam ne benn doomu ministre moo daan ñëw fin du mois teg saagam di fay gaay hmm. moo tax organ ba faatu na. dina faatu doomu ministre moo daan ñëw toog teg saagam. di fay gaay noo non liggéey ma fa mais dama xam dama xam ku fa liggéey ku ko expliqué dañoo amoon information après ku fa nekk wax ma ko récemment yàggul. Ah yàlla xam na ko. doomu ministre hors antenne naa la wax kan te boo ma sa nii dina am nit boo ma sa ñu wax la ko ci commentaire parce que loolu nekkatul woon secret finalement. bu ñu tolloo foofu tey jii foo xamante ne ñoo xamante ne tey jii boo nee organe sàngam ñu ne ministre sàngam a nekk ci ginnaaw waaye léegi dañuy ñëw loolu di wéy ba ba kañ. Mm-hmm. te ñoom ñoo ñu fi nekk tey jii bëri na ñoo xamante ne lu ñu mënul côté bu ne xeex nañ ci kaw xeex nañ ci suuf pour ñu bañ a jot ci nguur gi am na xeex nañ ci kaw xeex nañ ci suuf pour ñu bañ a jot ci nguur gi waaw léegi nag fi man man leen rek lay wax nañ tok waxtaan rek. man loolu la wax c'est pas je ne trouve pas normal président bi ñi diko bindu len tontu. na len recevoir tok waxtaan ak ñom bon extrémistes certains eh, extrémistes entre griffes te diront que ni waaw lu muy tok di waxtaan ak ñom mais dëkk bi dañ koy waxtaanee. dañ koy waxtaanee il faut que waxtaan am. waaw il faut que waxtaan am lépp waxtaan la. waaye ñi moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla suñu gars yee suñu mag ñi. kenn mun leen a faral man mu wax dëgg yàlla moom kenn mun leen a faral parce que dama xam ne nekk ci rédaction yi.

dañoo gëmloo nit ñi que le journaliste au fu mu toll nii euh, amuñu mais am na ñoo xam loolu loolu lañ lay wax njàpp dañuy dañuy ñëw <laughs> nga defal ñoom entretien pare ñu lay jox ñu lay jox 5000 francs wala 10 000 francs nan lañ jëlal rek noonu jëlal yow tamit ah, xam nañ ne métier bi 5000 francs wala 10 000 nan lañ di la ko buux nag. Ah, jël xam nañ ne xam nañ ne de un million un euh, un million patron yi ñoo koy capté. Ah, xam nga loolu moo tax presse bi metti non ñoom ñoo koy capté. ay 1 million yooyu ñun ñoo koy négocier encaissé ko fi fii da nga fiy gis koo xamante ne jàpp day lijjanti convention nar si am pourcentage ñu këf ko tourné ko mais yëpp am na si organes yi. <laughs> wala nga dem yow journaliste bi. hinga wara am yow pourcentage ci convention bi waji ñaané la yow sa 10% bi dara mom la lay wax ñu tourner ko do lek duma lek ñu ñu tourner ko wa légui yow bu fekké né da ngay ligénté niki té yéné woko wa légui nga dem ba say intermenance nga bëgg leen woné ñew leen ngeen xéxal ma man suma lay xéxal day fekk nga jox rek mm-hmm. ba sour nan ba mandé sol rafet correct wa nekuma ci ben jafé jafé xex am nak kër gi menacé nañ nga né Moustapha génnal ñu xex damay génn may juri ci kanam waye tek ma ci kër gi dima door

les salaires ne suivent pas. man jàpp naa ne la classe la presse classique. autour sen patron yi war nañ xoolaat lu ñuy defaraatee surtout Mustapha modèle économique bi mu nekk un problème dans la presse sénégalaise parce que ba ñi nga xam ne mooy Sonko ak Diomaye ñëwee ba tëj li nga xam ne moo nekk les conventions si le problème bi ñëwee

da nga daan gis ñu bari si ñoom dañ daan xaar aide à la presse bu waxtu yu jotee. non maanaam lu ñu daan wax ñi ñu dóor leen ay 15 millions ay 10 millions nga gis si ñoo xamante ni seen organe benn dara nekku fa nga dégg ñu ne encaissé na benn 8 millions 8 millions fu mu jëm du dugg fenn dara duñ ko dugal lul gaaj-gaajee ko seen biir. léegi nag bu fekkente ni seen modèle économique da ngeen ko teg mooy modèle boo xam ne dóorkat la dóor la modèle lu dóor la saa bu ma xëyee une bi. wala ma wut ko xamanteni ne dóor naa ko wala benn entretien bo xamanteni ne naa si 500.000 benn francs wala ben 1 million. Hmm. te lolou non lepp ngay def bo yang koy gis ñi ci si seen beut waye mënuñ ci dara duñ ko ñam duñ ko jégué euh, ni ni da lay di rombé dal ñom duñ ci amu amu amu ci dara lo xamante hmm. nañ ko gis mais lolou ay frustration lay créer ci bir lay lay lay lay ci bir organes légui nak lolou loolu tax comme ni nga ko ci modèle économique bi. organi yele charge yi ñi am. nga am benn télé boo xamante ni supposons say employé bëri nañu euh, vraiment carburant bu ñu xëyee war a dem reportage moo tax am na si télé yoo xam ne da nga doon dégg yenn saa yi bu ñu la koy sax doo ko gëm dañoo waroon dem reportage dafa am benn kii benn confrère quoi ma gis ko mi woote téléphone lu bëri mu ne ah nooy def boo xëyee boo ko la ñu naan carburant amul ci oto bi mën ko yéen tollu ngeen foofu si mën na ko yéen kii mën na ah, ko yéen kii lu tax demoo leen jëli ji ko këram mu ne mënoo dañ na ma carburant amul wala nga dem nga war a jël benn autorité mhm. on te dit que boo euh, yeggee autorité bob moy remplir carburant auto bi donc de ce fait yow kooku ban relation nga wara am ak bobu auto autorité ko xam yow c'est yow yaay patron de presse bi boo mhm. yeggee moom moo solal la musaloon ça on l'a léegi léegi mais <laughs> yooy yëpp am na fi. léegi nag yow kooku tey jii boobu ñuy hmm. man xam naa fi nga fi nga xam naa fi nga nekkoon. <laughs> fi laa tamit xam naa fi nga nekkoon. <laughs> xam nga man damaa bëgg koppar si laa ne xaaral ma dem fii fi toog. non mais gis nga njàpp presse bi mënoon nañu ci wax fii ba 18h. lii nekk ay góom ci presse te malheureusement malheureusement débat boo xam ne dañ koy ragal a waxtaanee gis nga problème mu presse bi li si jiitu bokk na ci patronat bi. ni ñuy gérer organe de presse tey ji ñu baal ma ci kàddu gi de mais am na ñu bëri ñoom xam nga la moo leen jàpp àq. am na ñu bëri du du question dara du ay jomaay ak ñeneen man dem naa ñu est-ce que àqu jeune reporter daluñu leen sax. Mm-hmm. parce que am na rédaction yoo xam ne booy souffrance gi ñuy daj ci biir rédaction bi na la ko yàlla ump. lu ne lañ fay daj. léegi gis nga décalage bi mooy garaaw. Mm-hmm. yow ki li même waa ji patron bu gaaree otom ba rek yow. ak booy booy nekk si rédaction bi rek non day mel ni nuñ koy waxee Paris ak. non da ngeen yërëm en ak waxina nimzat ay nit yu yërëmtalu leen. len c'est extraordinaire. te yow euh, journaliste bi tu es cadre tu as bac plus 3 ah bac plus 4 bac plus. y en a même plus amna na plus. Ah, man comprendre ma pourquoi ñu bëgg jël journaliste rek euh, bëgg leen yemle euh, ne booy gagné 500000 francs ou oh, yow am nga xaalis. Mm-hmm, mm-hmm. boo boo gagné 1 million ñoy yow tek nga mais il faut arrêter. waroo ko am. non il faut arrêter. ben ben ben ben sax ñoko am. ñene ñepp yene yéenewuñu leen ko xalaatuñ ko waaw motax man je pense que. je pense que war nañu war nañu mën a xoolaat bu baax ba seen diggante ak jeune reporter yii hmm. bu ñu ci jógee nag bu ñu jógee si jafe-jafe bi dama leen koy wax ñoom patron bu ñu jógee si jafe-jafe nañ gëstu ndaw ñi ñuy liggéeyal. Euh, te à défaut euh, mën a fay nombre. xam nga des fois le nombre pose problème. parce que à chaque fois euh, luy génn ci marché bi pour intégrer euh, les rédactions. Hmm. gars yi mënuñ ko observe euh, hmm, hmm, absorber. mais Moustapha nga jël nga jël ñoo mëna a fay. nga jël ñoo mën a oui man je préfère 4 emplois yo xamante ku nek dina am ay salaire décent que nga am 20 emplois yo xamante ku nek da nga leen di ñamal. ñi ñi ñi ñi souffrir ci biir kër gi amul benn sens pour man. te nag technologie fu mu toll foofu la jëm. waaw pour man ay métiers journalistes yi ak ak ak technicien Euh, yu yu ni mel ay métier la yoo xamante ne mais ñu ngi doon waxtaanee barki démb IA bi mm. intelligence artificielle léegi da lay bindal article njàpp léegi yow tu ne fais que bien vrai du exemple bu baax bu gars yi war a jël parce que journaliste bu ñu ko waxee réflexion la article de réflexion ki ni mel mais nga jël technicien yi njàpp studio bi ban ban ban caméraman moo fi nekk amu fi ñu ñaari fi toog ngeen teg seen caméra robot boo bëggee caméra bu la fii caméra bale gestu fële réalisateur bi nekk ci ginnaaw bu njëkk ba ñaar la daan da naan teg fii benn caméraman mu taxaw lonk ko ci mbagg bi nga teg fii beneen caméraman mu lonk ko ci mbagg bi nga teg fële kii jël large bi keneen ku ko tegaat trois employés am ñu déjà waaye léegi bu ñu jëmee foofu tey si pour man ay métiers la yoo xam ne il faut que ñu anticiper léegi yow boo nekkee cadreur ngay moon ci cadre da nga war a mën monter jàng infographie tamit pour que tu sois complet yow boo nekkee journaliste doyatul nga ne damay jàng école génn toftalal ci ginnaaw droit wala nga toftal ci sociologie wala nga toftal ci santé wala nga toftal ci lo xam bu ñu journal day am plus lu ñew ci ginnaw pour faire même des chroniques. pour faire des chroniques wala nga am benn bagage bo xamante di nga am foo spécialisé mm. mais jamono dafa weesu nga dem génn ji école rek daw dugg ci benn rédaction du journal ci kessela dañ lay exploiter dañ lay exploité te fañu jëm fañu jëm journal si kese jaayatul. te déjà yoon commencé nako koo xol xoolal journal si gën a fës ñu njëkk à la base dañ lañ won tay ji mais amna fuñu jaar do a ñew mm. dañu am seen wenn master quelque part ñew Euh, xoolal daaw de min euh, exemple bi fi ñu toll nii. Mm-hmm. est-ce que bu fekkonte ne du droit bi tey ji moo ñenee ñëw yem mais droit bi ak am na fu mu ko aj loolu pour man dafa war a inspirer ku nekk balaa nga dem defe ji école formation di jàngi journalisme nga dem jàngi benn savoir ba noppi boo xam ne mooy tingom journalisme bi boo ñëw na nga toog ak moom mm. su fekkente ne nag euh, soo demee si rédaction bi dina am benn plus value boo xam ne di ko fa indi mais jamono dafa weesu foo xamante ne dañ naan journalisme kese kese kese kese laa mën parce que mm. léegi nit ñi dañoo gën a bëri nag ñiy génn si école dañuy bëri te loolu mooy def différence bi ah maanaam plus mooy différence bi mm. journaliste plus droit am nga différence que journaliste bi ki fi kese Qui est def journaliste plus sociologie amna journaliste plus psychologie amna amna plus boo xamante ne keneen ki amu mhm. journaliste plus euh, histoire amna plus boo xamante ne keneen journal, journaliste plus euh, science amna plus boo xam qui keneen ki donc pour moi, faut lañ toll fi il faut que jeunes commence commencé adapter mm. euh, par rapport à à koy waxatee sax par rapport à ces situations merci. et les écoles de formation aussi s'adaptent mhm. parce que ici.

Sénégal dafa métti. war a nekk si def ay études universitaires te ati xaarul te ati xaarul tamit. loolu suñu génération a ati xaarul te te waaw ati xaarul te nag parfois non parfois yooyu li koy indi sax mooy da ngay glissé si journalisme maanaam dangay ngay jàngi droit ba noppi. waa nga sentiroo ko nga dem def ci journalisme wala nga jàngi sociologie ba noppi nga ne man daal des na on nga dem défis de c'est vrai parfois mais du won da ngay jog ba ngay jang tu tu voulais être sociologue. c'est vrai ba ngay jang droit tu tu voulais être magistrat ou bien avocat ou quelque chose comme ça. Uh-huh. mais après un entre temps peut être ngay gis ay changements si beaucoup. Avec ak capacités nga dem perfectionné wu ci une discipline. Mm, c'est important Nous beneen l'épisode. ñu